kilifa googu nga xam ne dafa dajoon àdduna daj jamono nekk ci biir xolu doomu aadama yëpp. wal falu inda rasulillah mu xaraaru laakin na ma ahmadul muxtaaru muxtaaru dañ koo tànn ba noppi tànnaat ko ci biir tànn fi lenn ñorul lenn ñorul lu sëriñ Tuubaa ak njabootam gi di ñaan yàlla sunu boroom xam ne dara tëru mu defal nu ak wér defal nu ak tal defal nu ak mën te di ko jëfe fu nu toll sax ci ndigalam rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun noo ngi sant sunu borom mi nga xam ne ci moom lañ bàyyi ko woon te ci moom la ñuy dellu Cheikh Sidil Mokhtar bu fekkoon ne eh, mën nañu xëccoo dana dana tax du dem kon benn jullit du ko bàyyi mu dem moom la nu may surul masuun xar baax la feese ba ni góoj baay baa ko lëm ci xarnu bi doomi sëriñ Tuuba dafa doy lépp te ñoom kenn ku ci ne danga am samay bopp goo ne gi moo la ko xaasale Euh, Cheikh Mahamadou Lamine dafa bokk ci kenn ci njabootu seexal Al yàggu fi loolu waaye suñu borom cërale woon ko loo xam ne nag euh, kenn fekk ko ci bi ci jëkk ci wàllu baatin ma masoon moom la ko Cheikh Al Khadim joxoon. Cheikh Mahamadou Lamine nag ni ma ko waxee woon na Sëñ Tuubaa ci wet yu bari waaye dañuy dikk ci mawhiba bi ak xaas ji. wax ci li nga xam ne bii gis nañ ko ci ay mbindam wax na ne makkante ni kii nar tamkiina rijaal loolu ak waxee sëñ bi benn la waaw sañ-sañ beeg may geeg mbóot yeeg xaas yi da da daje na ci mu ngi roog loolu waxee sëñ bi Cheikh Abdoul Ahad daf daan wax ni xaritam la woon da daa wax ni fu mu ko mas a fekk ko séenee bañam lay jëkk a gis bu see bu ko ne asalaamaaleykum kooku du wàllu yu waa Kajoora mm. mu ni ko boole si bawal ak fépp loolu lépp ci sërul mason du ko seexal xadim jagale la woon la bokk kooku nag ku bàyyi ko ci moom ñu ne doomam melu mu mel rek du euh, du yem kenn loolu sant nañ ca euh, sant nañ ca soxna Mati Lay ndax dama ko ne du Mati Lay matu lay la ndax ku ñu yónni ci kër nga indi fam sëñ Tuubaa mat nga faw lay fa nga jóge woon du sëñ Cheikh mati lay sëñ Cheikh matu lay la. Serigne Baye Jaxate daa waxoon Serigne Touba ne moo mat te def lu ko mat moo yéeme def lu ñu naw moo tabbi pays boroomam génn may ku ne ndam sëñ Sidi Muxtaar loolu la doon dund 1925 bi mu feeñee jamono ba 2018 bi mu génnee àdduna ci boromam rek la nekkoon. kenn la ci njabootuk Cheikh Mouhamad Lamine baara Mbacke bokkoon ci ñi nga xamante ne bi feeñ nañ ci Mbàkke Kajoor ñu tuddee ko sëriñ Sidil Muxtaar mooy Serigne Cheikh Awa Balla mu doonoon koo xamante ne bi way juróom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbàkke amoon na ci moom yaakaar lool ba tuddee ko jëmm jooju bi mu demee matal dal jàng itam sëriñ bi Cheikh Mouhamadou daal moo ko dalal jàng moom ci boppam ngir bëgg ko barkeel àlluwaam soo ko jox waaye turandoom maam Cheikh Awa Balla. Serigne Sidil Mokhtar biñ ko joxee Serigne si Awa Balla mu mu jaarale ko fi nga xamante ne bi fa lañuy jaarale doomu soxna mooy jàngal ko alxuraan ak xam-xam jàngee na foofa jàngee na ci fi ñuy wax Serigne Ñaan Diop jàngee na ci sëriñ mu dem ginnaaw ba nag la wàññi ko waat ñibbisi fi nga xamante ni bi modi di marnan nek ak serigne cheikh hawbal fala fa keur bi nga xamantene bi joge na fa nak mu dem dekk bu ñuy wax tambedu ci ay mbokk way juróom wu jigen bam fa joge nak la sañ keur kër ngànn Cheikh eh, Sidi Makhtar nek xalifa général des mom le premier juillet 2010 lim jige def ñep dégg nañ ko dafa dal di wote dal di ni yoon wa Serigne Touba awon de ak rakam foofee laa fas yéene aw ndax daa mel ni doomi Sëñ Tuubaa ñoo mën seen yëf te ñoom ñëpp dem nañ tey nag ñi fi des mooy ñi ko bokk séq ko ñoo ko ñoo fi des mbir nag boo ko bokk ki nit séq kook ñoom dangay waxtaan ak ñoom ba dégg ak ñoom kenn ku nekk nga am loo ko nu mu tuddati ndax ñoo ci bokk yéene. nit yi euh, Cheikh Saliou lool ci ni ma waxee woon ne euh, yërmande ji ak ak bëgg gi Sëñ Tuubaa wóolu gi. mu nekkoon kilifa goo xam ne kilifa mboolem melokaan yi nga xam ne mooy day ci kilifa suñu borom defoon na ko ci moom ba ci njëkk di nekk bi gën a ëpp solo mooy kilifa goo ne ku ragal yàlla li ñuy wax yëbbatu taqwa suñu borom defaloon na ko foo ko gisee rek sax su xel dellu ci yàlla. bokkoon na ci innamal mu'minuuna llaziina izaa zukira llaahu wajilat quluubuhum bokkoon na ci. mu nekkoon kilifa gu dal te loolu bokk na ci màndargay kilifa kilifa gu tabe kilifa gu mën a jaboote ndax dafa mën a muñ. Cheikh Sidi Makhtar Mbacké jëmm ju dal la jëmm ju yaru la muy nit koo xam ni eh, ku teey la nit koo xam ni ku mën a muñ la nit ku xam lu bari xam lu bari mën a sette mën a sette maanaam mën mën a ràññatle. waaw ku yàlla may xel la ku mën a ràññal ku mën a seetlu la waaye nit ku nit ku ku ku dëggu waaw ku dëggu la nit la koo xam ne dama koy jëlale la xam na lépp waaye dafay jëlale la. soo si Muxtaar daal sunu borom mi nu ko joxoon mooy ki nga xam ne mooy matal jikko jikkoy doomu aadama la mu tagge woon yonente bi nag ci jikko yu rafet Cheikh loolu moo nekk Cheikh Sidi Muxtaar yonent bi ci boppam daa ba doon bàkku lam bàkku mooy ab yar ak teggin adaba nii rabbi fa ahsana ta'dibi la waxoon sun borom ne ko wa innaka la'alaa xuluqin asiim moo tax nga màgg ba noppi am jikko yu rafet yi sëñ sëñ ko nag kon maa koy xotti li yére labista siyaabal majdi wal fadli wal ulaa wa fiika min al-axlaaq maa ahjasal kulla loolee nag moo nekkan ci sëñ ko naqari ci nit yombut ku sikk yu bari waaye du ko jàmb du ko wax doonoon kilifa goo xam ne itam ku bëggoon Serigne Touba ndax mas naa wax ci làmmiñam ne loo gis ma di ko def rek dàkk bëggu Serigne Touba la ba ci ñim daan yóbbu Makka te mu doon lu ko itteel def ko liggéeyam bu ko ñor dadaa wax ne at maa ngi fàttaliku daaw jékki ba ñu bëgg dem ñu bare bari jàpp nañ ci ngir bañoon mu dem nakaar gunge ji leen mooy leen lii may def si liggéeyal Sëriñ Tuubaa laaj fas bu sama bakkan desee baax na. sëñ Bamba nag kat bu fekkee gaa yi jiitu danoo doxoon ci lislaam sëriñ Touba defoon dafa naaw sëriñ bi daa jënd Touba nag mayee fu ko ko kon kum fi teg mat na ko taay sëkk neeti ma waaw. la yonent bi waxoon nag sayidul qawmi xaadimuhum kii nekk sangu bindeef yi faaw day day mel ni seenu jaam. Cheikh Cheikh Sidil Mokhtar foo ko mos a fekk mi ngi ci liggéeyal bindeef yi lenn lu muy lu muy liggéeyal boppam nga xam ne njariñul boppam a tax ma di ko liggéey man xaw ma ko. dafa sacrifier boppam sacrifier ak njabootam door man li mu man daanaka su ma koy nattalee damay wax ni dafa jël doxinu waajuram Cheikh Abdou Lahad roy ko moo tax tey jii fu ñu tuddee kilifaam yu baax yi teg ko ci. wallaaxitu xayru lakk mi na loolaa la xamal addina mi loo ci am la yàlla dencal àllaaxira ko ëpp foofu te demoon yonante bi wallaaxitu xayru lakk mi loola bu boobaa nag fa fa saw fu yuuti karab bu ko fa tarda loolee nag seen Cheikh Ahmad lay da cee tegan am xelam teg ci teg ci bëtam teg ci bëggam bëgguloon dara lu dul yàlla ak yonante ak sëñ Tuuba tey doo dégg kàddoom bëriwul te jëf ju fi rëy mooma ak taali bi daal moo ko jàngalaat ñëpp di jëmm joo xam ne itam diirub muy nekk Sëriñ Baara lu mas a am rek moomale na ko waa juróom wa bi mu nekkee Serigne Touba itam lu ko nit jox defaat na ko addee Serigne Touba faggulu dara ak njabootam faggulu dara boppam nekk na fi Serigne Touba lu ëpp juróom-ñaari at gisuma kër gu mu fi tabax gisuma tabax bu mu fi tabaxal boppam kon kooku lu mu somb rek liggéey Serigne Touba la. nit la koo xam ne boppam ñoru koon yittee boppam ñoru dara àdduna li muy bari bari bari bari ba de ay xemmemteef yàlla dimbaloon na ko de maanaam ñoru ko woon taalibe sëñ Tuubaa yee ko ñoroon ak liggéeyab sëñ Tuubaa bi ak dëkkab sëñ Tuubaa bi ndax lu mu loo mas a wax ci àddina rek loolu la ni mu fonke woon daaray alxuraan yi ni mu fonke woon njàngum xam-xam ak ni mu daan dundalee ñi nga xam ne dañuy yëngu ci secteur boobu li mu daan seq ak ñoom ci ngay xamee ni mu fonke woon alxuraan ak ni mu fonke woon xam-xam. léppam alxuraan la woon léppam sunna la woon léppam Cheikhul Xadim la woon kon daanaka ab liggéeyam boo ko tënkee ci alxuraan tënk ko ci sunna tënk ko ci Sëñ Tuubaa moom moom ci ñett ñett yooyu rek la ndox amul ñeenteel. mu doon ko fonk alxuraan saa su nekk dana la laaj dongay bi ma ko mujjee. bàyyi xel nii rek ci jotaay bi ñu mujjoon di jotaay damaa ñëw nuyu ko yëkkati àddiya jox ko ko ngir sëriñ bi mu daal di yëkkatiwaat ab lim bu takku yónni ko seex Ndiaye yëkkati ko jox ma ko ne lii man dama koo jàppee ca daara ja ndax damay liggéeyal sëriñ Tuubaa ci liggéey bi nga koy liggéeyal. ma ne ko sëriñ bi man damaa bëgg nga may ñaanal rek maanaam ma liggéey bu ñuy liggéey sëriñ Tuubaa jàpp naa ne man la war. fam jaar sëriñ Saliou ak Cheikh Jili Cheikh Moustapha jaar jaar yu baax la yu siiw bindoon na kaamil bu set nag cib loxoom ne ko cas jébbal ko Cheikh Saal telum koy wax mu tontu ca waaw. fanweeri yoon ak ñaar sa jox na ma ko ay kaamil ma séddale ko lim boobee nekk 27000 yu topp defe naa lim baa ngi fii sax 27000 27408. ñaar ñaar fukki junni kaamil ak juróom-ñaar. ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti téere moom la séddale daara yi ci juróom-ñaari at mm-hmm. ci alxuraan la doon dox moo di ku ne teg na sa bët ba téere xam-xam yi itam ñu séddale ko majaalis yi mm-hmm. ñi nga xam ñooy jàng ci waaw mooy sëñ Bakki Abdourahmane moo ko daan séddale téere xasaayit yi nga xam ne moo ci ànd itam mm-hmm. bari gi ëpp na moom itam ñu di ko jox sëñ Moussa Mahmoudan ngir barkeloo ko sëñ Massamba mu di ko séddale waaw mu fees dell ak yërmande fees dell ak kersa benn yéen rek la am mooy yéene cheikhul xadim yi mu amoon ci dëkkam bu sell bi am ko ci lislaam am ko ci njaboot gi te dénkoon loola cheikh Mouhamadou Moustapha nga xam ne ku fi mas a jaar ci nga mas a dénk moo ne mu ne njabootu sëñ Tuubaa gi ak dëkkam bi ak taalibeem bi ab sàmm laaj waaye duma bàyyi da kenn di ko ruur doomu aadama suñ borom mën na ko may lépp waaye li ëpp doole ci li ko suñ borom di may doomu aadama mooy nite nit ku nite nit ku nitee foo gis rek xamal ne du nituk neen ndax lool cër la bu suñu borom di maye ndax Sëriñ Tuubaa mat googee mu matoon nite gaa ko nite gaa ko raw waaw loolu suñu borom da ko mayeen Cheikh Sidil Mokhtar. Cheikh Sidil Mokhtar ku sàmmoon la ku mën a jaamu yàlla la ku fonk bopp la bëgg Sëriñ Tuubaa la. bëgg njabootu sëñ Tuubaa gépp amul ki ak ka ñëpp la boole yir wo yërëm nit ku neexal a liggéeyal la woon ndax fi jamono toll mu yilif yoonu murit yor ak njaboot di adina bépp di ñëw ci moom te nit musu ko man ci aduna ne ko nangam ak nangam ci nit manam ba mu sukkandiku ci li mu gisal boppam teg ko bëtam xamal ko boppam. bi fi sëñ Abdou Aziz Bara bàyyi ko mu wutu ko ci njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine lim njëkk def dafa woo ñëpp ñëw mu ñu bëggatuma kenn di wax taalib yëpp diw laa ci biir kër gi. taalib sëñ Modou Bara la wala taalib sëñ Bass Khoudia la wala sëñ Abdou Lahad Bara la wala daal sëñ sëñ kenn la déedéet nañ wax taalibe Cheikh Mouhamadou Lamine Bara laa xam dajale njaboot gépp dajale taalibe yi ba ñëpp nekk wenn say loolu la jëkk a def. jëmm jooju nag nekkoon koo xamante ne bii kenn la ci kilifaam sëriñ Abdoul Aziz Baara ku ko toppoon la ku ko déggaloon la ci ay ndigalam. Cheikh Sidi Mokhtar am na fu mu tegoon waaye fi mu tegoon du sunu njàmbaar du sunu melokaan ci baaxu boppam la nu jàppe ak démb. ñoo koy sant moom Cheikh Sidi Mokhtar di ko gërëm. ci doyloo kim doyloo njabootu sëñ Fallou ci lii. ku ku fonkoon ñooñ sëriñ bi la mooy ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Touba rawatina ñi nga xamante ni bi mooy njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ndax it suñu waajur it daa am cër bu mu ko joxoon loolu moom sëriñ Moustapha te gis naa doomi sëriñ Moustapha yëpp kenn ku ci nekk xër na ci yow def na ci yow jëflante na ak yow ba kenn ku ci nekk it taxawaay bi muy taxaw ci yow da ngay jàpp ne moom yow rek la am. li way juróom ba Cheikh Saalihu Mbàkke radiyallaahu anhu waxoon ne du ma fekk lu yàlla yaatal ma di ko xatal sëñ Sidi Muxtaar bi mu ñëwee dafa yaatal lépp tàllal ñëpp loxo te boo xoolee ñi nga xam ne ñoom la séqale liggéey bi kenn ku nekk ak fam la teg ci ngay xamee ne kon moom lii mu doon dund xam na ne du yëfi kenn yëfi ñëpp la waaye itam nag mu ànd ñëpp. bi mu toogee gis nga nii mu def ñi nga xam ne ñoom la bokkal que Cheikh Mamadou Lamine ñu ko ci mag mbaa ñim ci mag kër gune ñoo ñoo fa nekk di ay njaboot yëpp da leen dikk taf leen ci boppam ku xool daal di gis. moom moom de la sëriñ Abdou Lahad waxoon rek boole de moom yàlla moo koy def ànd nag bu yàgg te rafet ay jikko rek ko mën a def. defal na ma loo xam ne lii jomm na ma. nekk nit koo xam ku mën a dimbalee la ndax su ma bay eh, ba noppi daf koy denc ci ay sàq suñ demee ba nga xamee ne eh, nit yi li bayoon jeex na. mu woo leen ñu koy bojj di jël dugub bi di ko séddale loolu yàgg na ko def rawatina 1972 bi nga xamante ni nawet baaxul woon xiif xiif dafa amoon Sénégal. bàyyi woon xel taalibe yi la ak bokk yi. jaxasoo gu ma jaxasoo moom tax Serigne Saliou yónni ma fa jox ma juróom fukki saakuy dugub ni ma demal yëtal ma ko Cheikh Sidi Mokhtar. nekkoon na ko yeggalee nawet bi booba mois d'août lan nekk bi ma ñëwee fekk ko kër ngànna ma fekk ñaari sàq yi juróom yoo nga xamante ni bii da ko may waa réew ma ñuy bojj di yóbbu seen kër nga xam ni day mel ni juróom fukki saaku laa ko laa ko yëtan waaye fekk naa moom mu yë mu téeméeri saaku yoo nga xamante ni bii séddale ko waa réew ma mm-hmm. ku ñëw ne yaa njëkk a def moo tax mu jóg di ca def sa jëf la ñëpp di roy fil bahri ak jéeri jamono dafa toll foo xam ne euh, roy mënula ñàkk waaye royit bi ci ëpp solo mooy nga gis nit ki muy jëf tam bañ a yem ci waxi kese mm-hmm. moom nag yàlla mayoon na ko ci wàllu googu ci jëmmam la nga xam ne bu ko dee jëf ñu mën ko caa roy bu baax a baax te ku ca royit jële ca njariñ yàlla mayoon na ko itam mu néewal ay waxam lool waaye baril ay jëfam lool te loolu lu am solo la ci jikkoy jullit. ku roy ci moom incha allahu tabaraka wa taala am li nga bëgg fii da ko am fan jëm. sëñ Seydi Muxtaar muy koo xam ne euh, bindeef yëpp a ko ameel cant ak ngërëm ñëpp a ko war a ñaanal itam sunu boroom yokk ay leeram yàggal fi ak njabootam. ñu koy ñaanal bu baax a baax. suñ borom dolli ay leeram te taa suñ ci barkeem te li nga xam ne yéene woon na ko te ne woon ci itam suñ borom saxaar ñu ja yoon wi nga xam ne xàlloon na ko itam suñ borom saxal ci njaboot gépp te ñu ngi ci rafet njoot dañu dalum xel bu baax a baax. man deselu ma ko dara daal lu euh, di ko di ko ñaanal tey ñaan lépp loo xam ne lii lu mu fi bàyyi la saa borom def ci barke. Cheikh Sidil Mokhtar. alxalifatul am li taifatul muridiya ni yàlla yokk ay leeram di ñaan suñu borom mi nga xam dana tëwu ko mu yokk ay leeram mhm. yotale ko ngërëmul suñu borom ngërëmul yonent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. ngërëmul borom Touba mhm. ngërëmul mu Ahmadou Lamine Bara waajur mu tedd kon nag li ñuy ñaan yàlla ci barkeb Serigne Touba yàlla fab loxoom teg ko ci ak njabootam te rafet nañ ci njort ndax yàlla du sànq jëf ju rafet njabootam gi mu fi bàyyi itam muy sëñ ak ñii mu joboote ñoo ngi ñaan ci dara gi Sëñ Tuubaa mii suñu borom sàmm leen aar leen suturaal leen seytaane ba ñu ma ñu dox seen diggante. ñaanal doomam ji nga xamante ni bii ba moom moo fi nekk di sëriñ Moustapha suñ boroom wéral ko kàttanal ko ba li nga xam ne waajuram nesaroon na ko lépp suñ borom àggale ko ci kàttan ak wér te defal ko barke ak lépp loo xamante ni bii bàyyi na ko fi. Cheikh Moustapha mi nga xam ne moom la fi wutal sans borom. kattanal ko te wéral ko wéral ay cëram mu àggale naa li Cheikh Mouhamadul Cheikh Moukhtar def naa li boppam ak njaboot gii ma ko àndal ni ko sëñ bi takke woon mu di saay rek ñu ñu doxee ko noonu mu yooyee rek ànd nekk ci ginnaaw Cheikh Mountakha mi nga xam ne moom la fi Serigne Touba teg te mat ko sëkk yàlla na ko yàlla wéral te yàggal ko fii te may ko yéeneem may nu ñun ñëpp suñu yéene حق البكاء على سادات أمواته تبكي الأراضي عليهم كالزماوات حق البكاء على سادات أمواته تبكي الأراضي عليهم كالزماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات